axusubillahi bisimillahi na waliyallahu bisimillahi rahmaani rahimi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki yi teew ci cant gi ak ñi yéene teew te mënuñoo teew ñëpp muy mbokk di xarit di wëllëre di am di jàmm ñëpp ñu leen di siyaare siyaar bi gën a di leen ñaanal ci sunu borom mi nga xam ne ni mooy nungu jëf tey fay jëf mu nungu jëf yi yëpp te fay ko te fu leen di leen ko te yàggal leen fi yàggal leen dolli leen xewal dolli leen kàttan ak wér ba waxtu wi saa yu ñëwee ngeen def ko nu kawe seen jort ak seen yeneen sunu borom nangu ko sëriñ bi nungu ko xewalal ñu ci jullit yëpp def jàmm ci réew mi yëpp ak njaboot gi yëpp yal na sama borom jubale njaboot gi jubal leen jubal seeni mbir ginnaaw loolu wéyee Euh, Alaaji Malik mi nga xam ne nii mooy kili mooy mën naa mooy jiital daayira bi euh, di borom kër gi di di maanaam mu jiite njaboot gi ñu ngi koy siyaare di ko tatagal di ko ñaanal jàmm euh, di ko sant itam ndax alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamee ne sunu borom dogal na yëngoom yëpp ci liggéeyal sëriñ bi la maanaam lépp lu jëm sëriñ bi amul ci fu mu yem tàmbale lay def waaye amul ci fu yem te da koy def ci ànd ko fierté ndax lu ñu nuroog njësal bokku ci lu ñu nuroog lenn lu dul ni liggéeyal sëriñ bi amu ci ñaan sunu borom sunu borom sëriñ bi dolli ko bu baax a baax a baax a baax dana ko kattanal wéral ko njabootam gi nga xam ne ni sunu borom dimbali na ko li sëñ Abdou Khare ne euh, jàmbar amul ku ñu dimbali am dafa am ndimbal ndax uh, njaboot boo leen yoree sunu borom dogal nga saytu leen yar leen ci diine yar leen ci liggéey yar leen ci sàmm seen ngor ah ba ñu nungul la loolu sunu borom dalaa dimbali waaye du ngóor a te it li ko sunu borom wërsëgal mi ko koy bokk ki bokkam ak julit bu mu war bu ci bu ci wërsëgam nekk te kenn musu koo jox soutien boobu dañ ko naan diw day anniversaire uh, grand théâtre musuma ko dégg de fenn fuñ ne Malick dafa dem Grand laaj ko ñu ne ko dafa dem Grand Théâtre wala dafa dem Sorano musuma ko dégg lépp luy sëriñ bi nag moom bis tey sax lu mu ci def tey boo liggéey mën na koo daal di defaat kooku moom ak euh, ngëmam ngëm la ak euh, dëggu la ak yaakaar la yàlla sëriñ bi gën a la yaakaar mi daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke Seexul Xadim sun mu defal na feex ñu dundi ko dundinu rafet saa ñëwee yàlla nañu koy fekkee tatal ko te wér gu nu fi am bu waaye indi yàlla na yokk saa yu wërsëgu fi awaay am balaa dellu si déwén yàlla na am lu ko yokk lu ko ëpp ci daraja yonent bi barke Seexul Xadim barke Seex Babacar Thiergane. bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim jëf man daanaka li ma bëgg a wax lépp Alaaji Omar wax na ko bisab Sëñ Tuubaa moom loo ci def ren bu déwénee di nga am lu ko ëpp. te bis bii yàlla dogal na yéen xale yéen ñëpp ci ndigal ngeen ko def sëñ bàcc ba ñu ko tàmbalee ragal naay ak tey ji woo waroon na nga xam ne sëñ waa moom loo ci def rek ca kanam la jëm bis bi nag sëñ bàcc ba mu ñëwee fi ne ne ci ndigalal sëñ Muntaxa moo leen jox bis bii at mu jot ñu di ko def ba mu leen ko joxee léegi daaw la ñu ko tàmbali defaat ko ren ji ku xool ren di nga xam ne waroon ak daaw lool kon nag sëñ Tuubaa mi ngi noonu day joxoñ rek fu mu la joxoñ soo defee tey la ngay gisaat ci déwén sa mu la leer ne la kon fi mu la joxoñan foofu la rek fii daal man sama xol dafa sedd guy ba uma lu may wax ndax waa koñ bi yëpp kere damaa dem ci bitik bii di jënd am lu ma fa doon jënd am ku doon laaj daal na ma mooy kër gi ñuy def daayere bi man ah kon kon kon boobu adresse dara dara ko bu bu jot fii la ñuy daje góor ak jigéen mag ndaw ñoom ña xale yëpp def daayere bi ba tey jii nag la la ñu am digalal sëñ mu Mountakha at mu ne na ngeen koy jàpp di ko def loolu aw ba leen lu ko gën a kawe li El Hadj Amar wax nag moom rek mooy dëgg koo xam ne bii lu ñuy wax ci sëñ bi wala ñuy yëkkati sëñ bi wala ngay sëñ bi moom ngay xool xooloo leneen ku koy xool moom bu yóbboo nga xool ma. ndax sëñ bi eh, jox na ma ay ay ay ay ay kiraama yoo xam ne bii sax ñimeetu waa def leneen lu lu jëm ci moom kon yàlla nañu koy yàgg def te ngeen yàgg ko taxaw te mu yàgg ñu fee fekk. auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin a rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazin an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim a bismillahi a rahim man sanna hinnaka tuxaakil basar wal jinna wal malaka lan yu basara akasiwaaka man xayruhu min al wara wa anta xayru man xilaayi sawara madda ilayka allahu fadlan saara kama ilayka xaadaman lam yaxsara mat uka ah jasala si tafakura ahmalan yaa xayrin basiran sakkara daxawta lillaahi alil basara wal jinna anta xayra alil basara asalaamaaleykum mbokki taalibe yi def ngeen lu rafet lu jaado loo xam ne maanaam da ngeen a wat lañ naan wat ca watit moom ngeen def ndax kër gi ngeen koy defee tey muy kër El Hadj Malick Ndiaye El Hadj Malick Ndiaye ku ne xam na ne ku xam ku ne xam ne waay juróom xasida la dund ba ni fi jóge kon buñ dee jàng fii xasida def nañ lu jaadu ki leen fi yebal làmbatu ko démb woon tey doog a ñëw kon yàlla na ngeen ko yàgg def te lu ngeen ci yaakaar yàlla na ci yàlla defal lu kawe barki ahmadul moox ni taala an sin na jërë ngeen jëf sëñ Malick nag maanaam ñëpp a ko war a jaaral julli yëpp a ko war a ñaanal ndax yitteem yëpp mooy dimbali doomu aadama yi def lu baax wax lu baax mooy yittey sëñ Malick sama baay bi wax na ko te looloo am Malick ku xam ci lu baax ngoo xam kenn xamu ko ci nuk su alaal alal ko yàlla li ko yàlla dénk ci wërsëgam bokk na ko ki bokkam yëpp ak ñu ci bokkam sax ku ñëw ci moom mu fajal sa saajo kon yàlla na ko yàlla doo yéen ñii di saytu xasida yi yàlla na leen yàlla loolee jàppale ba lu ngeen ci bëgg lu ngeen ci am am ci lu ko foog a foog tax ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf